45 minutes chrono di émission buy dalal ay politiciens ay kilifa diine ay leader di amee fii ci Thiénaba TV émission boobu la ki leen koy defal mooy Moussa Ndiambe Guèye leen ko xaar chaque dimanche bu 21h jotee fii ci Thiénaba TV. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam euh, di nuyu mbokku téléspectateur yu Thiénaba TV. Euh, jël nuyoo bi teg ko ci loxol Baye Serigne Assane Seck xalif général bu Thiénaba euh, mu jël nuyoo bi rek ñu jël nuyoo xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp teg ko ci loxoom euh, nuyoo njaboot gi tamit ñu teg ko ci loxoom di nuyu téléspectateurs yi ak internet yi nga xam ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak ñun ci 45 minutes chrono 45 minutes chrono seen émission la émission la buy daw dimanche bu nekk bu 21 heures jotee. Euh, fii ci Thiénaba TV euh, ñu ciy dalal ay personnalité di ci dalal ay nit yoo xam ni euh, dinañ mën a partager ak ñoom loo xam ni njariñ lay nekk ci askan wi tey nag ñu dalal Khadim Gueye dëkk Touba Gueye waaye Khadim Gueye bi nga xamee ni moom moo jiite coalition bi di jàmmi gox yi moom la ñu dalal xam naa ci présentation bi du ñu guddal ndax façon bi ñu koy defee mooy moom ci boppam Euh, sommairement moom moo ñuy présenté boppam euh, wax ñu fu mu jaar dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo bu nuyoo rek ñu dellu waat euh, doog a dugg ci waxtaan bi monsieur Khadim ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Ndiame maa ngi lay fay di la sant di la gërëm ci occasion bi ngeen ma permettre ma wax ak samay concitoyens wax ak samay mbokk yi ma bokkal commune bi. kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen xamal ne maa ngi à disposition. macha allah euh, mu nekk nuyoo bu ama am solo. monsieur Khadim ñu ngi lay ziar. Euh, concept mille chrono loo ci xalaat. c'est très intéressant mm-hmm. te yàlla xam na ni concept la man bu ma rafet rafetlu. Mm-hmm. maa ngi ciy soog a jàll naam tey. Mm-hmm. waaye foog naa ni su ma juumul. li ma rate ci. émission yi bëri macha allah mm-hmm. Mm-hmm. ndax même su ma ko mënta suivre en direct aussi mm-hmm. su ma paree ci yitte yi may nekk à chaque fois dinaa jël sama ordinateur seetaan ko dinaa ko seetaan ay yooni yooni yoonu ndax allah macha allah dafa nekk un trait d'union ci ñun ñu dëkk ci commune bi ak sax boo xoolee au de la de la commune intérêt général pour population yu bëri ce qui fait vraiment lu ñu lu ñu lu ñu rafetlu la uh-huh. lu ñu yàkkamti woon la aussi towaar kàlla lu ñu rafetlu lu ñu yàkkamti mu jóge ci euh, kàddu yi monsieur Khadim Gueye mm-hmm. euh, waxoon nañu leen ko léegi euh, monsieur Khadim Gueye dëkk commune Thiénaba dëkk plus particulièrement Touba Gueye mais kii seetaan te xamul kan mooy Khadim comme ni nga ko waxee c'est la première fois nga jaar au niveau de Thiénaba TV ñu seq ak yow waxtaan Euh, est-ce que Xaadim mën nañoo defal benn portrait euh, boo xam ni fan la juddoo euh, fan la jànge fan la jaar ba tey ñu mën a toog moom wala sax ñu ni ba tey mu mën a toog yëkkati loxo ni damay laaj commune bi kan mooy Xaadim waaw Xaadim man maa ngi juddoo fii ci Touba Gueye mm-hmm. ku ne xam ne sama waajur laaj Alaaji Bunaama Gueye mm-hmm. Touba Gueye nag quartier la ci village bu mag bi ñuy wax Kër Maysa Ndiaké dëgg la mhm. Kër Maysa Ndiaké ñu ngi ko sanc en 1880 mhm. ci sunu maam may sa Ndiaké bi mu yor tur bi mhm. muy dox ba mu am ay quartier yu bari dëkk bañ jëkkoon na dëkk tudd toujours Kër Maysa ñu koy wooye Ngent moom Daaru Mbóoj am Kër Ibra Ñaan am Touba am Paleen di ay quartier yoo xam ne dafa nekk donc fii laa juddoo bi ma juddoo ah comme sama moroom yëpp dem yóbbu nañ ma comme doomi soxna dem naa daara dëgg la maa ngi jàngi kër Abdou Dieye mhm. ba ma jógee ci daara ji mhm. ma dem dugg école mhm. fii ci Canaba jànge fi jóge fi dem dakaar Dakar continuer sama jàng ba am ba diplômé en marketing et communication foofu nag ma commencé liggéey euh, ma liggéey dans le secteur du tourisme j'étais sa mon premier poste j'étais agent commercial mm -hmm. dans une société de tourisme mhm. pendant quelques années mhm. ah, nit toujours da ngay gën di wut jàmbaar di yokk sa xam-xam di yokk say activité mhm. ay société détecté ma ci millier bi aussi euh, di ma jël ba ma agsi ci postu directeur commercial de la société Selov qui est dans le transport touristique ñëpp xam tey qui est leader ou bien même parmi les leaders par la suite ma continuer mais comme. mais foofu moom da ngay fay publicité après. ah da ngay fay publicité. <laughs> d' accord je vais demander au directeur général mu fay publicité bi macha allah. c' est d' ailleurs jusqu' à présent. ensuite. Euh, ci laa ak ay nit. Mhm. ñu créer notre propre entreprise. Mhm. tuddee ko Prestige Car. Mhm. et trajectoire nit nag. yàlla rek moo koy. rëdd dëgg la dëgg la. bi ñu liggéeyee foofu ay années. ah j'ai une bourse de coopération. Mhm. lu tax. Mhm. on est arrivé à l'alternance de 2000. Mhm. Ablaye Wade teg ay projet de développement. alors j'ai j'ai la chance. daje olof olof tuuti daje. Ah, waaw ak <laughs> ay investisseurs yu ñëwoon bëgg liggéey Sénégal. waaw bi ñëwee liggéey alors ñu copte ma. ñu taxawal ay kuréel yoo xam ne ni bëgg nañu bokk ci liy développé ci réew mi. mais ñu ne ma écoute. on a des systèmes de gestion parce que ñu ngi doon def ci wàllu tali ak infrastructure faw nga ñëw jàng suñu système de gestion liggéey ci suñu biir entreprise yi pour nga xam vraiment véritablement naka la ñuy doxee loolu jël ma yóbbu ma Europe ma dem ñu jox ma bourse j'étais à l'université Bologna de Padoue ah bi ma paree foofu ñu yóbbu ma ma dem ci entreprise bi j'ai fait le tour de l'Italie un peu partout pour travailler dans les sociétés pour xam li ñuy liggéey dans la gestion après avoir après le management et la conduite des projets ma nekk foofu par la suite avant de venir au Sénégal ñu affecté ma Espagne foofu aussi yàlla defal ma ci sutura euh, ma diriger foofu xam nga nit ku ñuul waaw nga ñëw rek tubaab wóolu la jox la nga am ay tubaab yu nekk ci biir. am ñeneen ñu nekk ci biir du yomb. Mm-hmm. dëgg sërëx yi dina bari. dëgg la lu ne dina bari. Mm-hmm. ma da ngay gëm sa bopp rek. dëgg la mm-hmm. gëm li nga xam. gëm sa bopp. wone aussi ne nekk africain. wala nekk leneen du tey nga dem. dëgg la donc ci loolu laa continuer continuer ci nekk ci di liggéey. di dem ak ñëw ba yàlla aussi ubbil ma yeneen bunt. dans mes relations ci relation yi ma am ak yi ngay def. ma taseeg beneen groupe international bu ñuy wax Planifrio international. Mm-hmm. ñu jël ma intégré ma ci groupe bi. Mm-hmm. ñoo ñu nag ils son dans l' agro business. Mm-hmm. ma liggéey ak ñoom deux ans. ñu def ma directeur Afrique de cette société. loolu permettre ma ma sillonné ak ñoom à Afrique. pour def ay projets de développement. des projets structurants des projets dans l' agro business. ak yeneen façon yoo xam ne nii pour luy soqali nit yi soqali doom aadama mais aussi indi koom ak économie mm-hmm. loolu aussi permettre na dans le groupe mm-hmm. j'ai fait le tour du monde ak ñoom mm-hmm. des projets en Amérique latine en Asie et un peu partout dans le monde donc loolu daal mooy sama parcours bon liggéey naa aussi ci yeneen organisation yoo xam ne nii bon euh, donne un exemple. Mhm. Au moment où Wad luttait mhm. pour les APE, mhm. j'ai été waaw maa nekkoon ki nga xam ne nii daanaka moo doon jiite loolu dans la ci péninsule ibérique bi et coordonné aussi les groupes africains yi doon dem Bruxelles di xeex pour appe yi du am loolu yëngu naa ci ba ñu bari ràññeel dama ci ma jóge fa aussi nekk 16 ans le chef de délégation de la commission électorale nationale la Sénat bi organise élection yi un peu partout dans le monde mhm. donc dans le péninsule ibérique bi ak un peu partout je coordonne aussi l'organisation de ces élections là mhm. waaw donc j'ai fait le tour du monde waaw voilà en tout cas daal yàlla ci baaxam macha allah mhm. permettre na ma ah ma xaw a teg sama tànk fu ne ci adduna bi macha allah am ay relations un peu partout amit yu ma jàng am lu ma xam yàlla dimbale ma ba tey jii maa ngi wax anglais maa ngi wax français maa ngi wax italien maa ngi wax espagnol wax français bi ñuy wax ak olof bi ma naam. macha allah macha allah euh, macha allah mu nekk présentation bu bu sommaire xam naa mën naa gën a yaatoo noonu euh, mais présentation bu bu riche nga ñu defal kon euh, yow mi seetaan xam nga ni kon doomu Canaba ngi nii doomu commune Canaba boo xam ni bari na expérience déjà donte ndaw la ba léegi. Euh, euh, mais xaadim ci biir présentation bi dégguma nga wax ci benn yoon euh, jamono bii laa duggee ci politique jamono bii nangam mais kon lan moo la indi ci politique xaadim damay def politique mm-hmm. waaye du ma politicien man da ngay da ngay def politique waaye du ma politicien loolu ban différence la entre kuy def politique ba pare bañ a nekk politicien loo bëgg a wax foofu li ma bëgg a wax foofu mooy mm-hmm. man damay def politique ndax lii ma yëkkati sama loxo di ko laaj mm-hmm. xàll wi ak yoon wi politique la mais du ma politicien mooy adhéré wu ci benn parti politique. ah mhm. Mhm. doxewu ma xalaatu kenn. Mhm. damaa toog ba gis ne fii ma dëkk yaroo fi aw ma fu dul fii mënumaa génn fu dul fii su neexee neex ci man su mettee metti ci man metti ci sama njaboot. ma gis ne am na lu bari lu doxul ni mu war a doxee. ma jóg dugg ci biir ne ci li ma xam ci àdduna bi li ma jot liggéey expérience bi ma am as xam-xam si ma am man-man si ma am naa jóg engagé wu pour servir sama communauté. loolu moo ci dugal. Euh, daf damaa toog xool gis ni bari na lu doxul ci sama gox yaa ko wax. waaw lan ngañ ci mën a siteel lu doxul loo jàpp ni lii moom doxul ci sa gox. njàmme lan ngañ ci mën a wax. njàmme waaw su fekkee dañ ko teg rek. ci li tax ñu naan maire yi waaw ndax moom lay moom lay sàkku waaw mu am neuf compétence transférées waaw amit leneen loo xam ne nii ndax la mairie mhm. mairie mhm. structure la boo xam ne nii mhm. euh, dafay jigéeñee politique publique yi. Mhm. lay xëcc indi ko ba ci population yi ñu jariñoo ko. Mhm. donc champ d'action yaatu na. Mhm. yemul rek ci compétence transfert yi. waaye soo bëggee wax dëgg dëgg dëgg dëgg mooy dara dox dara nga wax de. ma soo bëggee. waaw ma ne. mairie. li nga xam ne nii moo tax ñu jóg. ci commune bi. waaw defuñu dara de. waaw xam nga jéem mën na. nit mën naa jéem nit mën naa bëgg donc ay nit a ngi fi di jéem ay nit a fi ngi bëgg waaye li dox bariwul très bien li dox bariwul tey nga ni ma euh, dara doxul ba ci ak nga ni ma même bu fekkee am na lu dox bariwul waaw ah. mën nga maa limal lu ci gën a séant loo xam ni da ngay jàpp ni lii moom doxul te boo ko waxee nit ñi dañuy jàkkaarloo moom comme lan par exemple xam nga bi nga xam ne nii moom laa bëgg a jëkkee waaw bokkul sax ci compétence transfert yi mais yitte yi ñëpp la waaw mooy agriculture bi mooy mbay mi mbay mi waaw ndax sunu zone bi mhm. dafa nekk une zone essentiellement mhm. agriculture moo fi ëpp ci yëngu yu ñuy dox waaw ndax soo jëlee li nga xam ne nii mooy commune bi mhm. daanaka cent soixante kilomètres carrés la mais cent soixante kilomètres carrés yi su ma bëggul a juum mën naa ne cent yi wala cent dix yëpp àll la bu ñu war a béy waaw yàlla dogal ñu am ay xur la tàmbalee ca limite ba mooy fa ñu kër mbay géey mm-hmm. fa ñu taxaloo mm-hmm. ba keroog ngay àgg mm-hmm. euh, kër yaaba jóg lépp am ndox la jaar kër yoro sadio jaar jaayaan jaar fépp lépp xurwa woo xam ne nii dafa yàgg am mbay lu ñuy jaay lu ne ci marché yi lu ñuy jaay fu ne ci yeneen dëkk yi daanaka lu ci bari foofu la jóge donc agriculture dafa nekk loo xam ne ni bu ñu ko boolewul ci compétence yi nga xam ne ni maire bi daf ci war a agir aussi mhm. forcement ay actam ak action am ak li muy def faaw dafay dugg ci ci ci agriculture ni mu war mhm. kon agriculture muy benn waaw doxul ak lan doxul li tax waaw ma boo ma mayee foofu ma leeral li tax doxul mën nga ñoo wax lu tax waaw li tax doxul mooy mhm. dañu toll au vingt et unième siècle ñu nekk zone boo xam ne nii nappe phréatique bi soriwul waaye tey jii boo duggoon xuru bangaaj ba léegi ay siyaan la ñuy dugg di yor ay pot di ko jaget di ko tuur waaw alors que ku ne xam na ni système irrigation yi bari na moderne na mhm. yaatu na te ñu néew ngay gis ñu dugg fen ci tool walla loolu nga gis ko am na ñuy gas ay teen di pompe di génne waaye buñ ñu génnee dañuy tuurat ndox loolu dafay wàññi potentiel bi nga xam ne ni production bi nga xam ne waroon nañ koy mën a def loolu lu koy wàññi la. mais mais mais Khadim doxul nga baal ma quoi damay xaw a njëkkanteeg temps bi tuuti doxul euh, wax nga li tax doxul mais da am solution. par rapport ak loolu. mais bien sur jàmme. waaw bi ñu taxawalee plan REVA. waaw man. et je parle damay wax ci contrôle lu ANIDA di wax ci contrôle lu tax médium laa yoolu ci sénégalais yi jëkk bokk ci projet bu def ay système moderne agriculture ci la bokk sama groupe boobu ñu exporté quatre-vingts conteneurs de melon et de pastèque di Sénégal vers l'Union européenne. foo ko doon defee. ci Ngomeen. Uh-huh. Ngomeen fii ci Pout. waaw ak Kirène ak Jilax. Mm-hmm. donc ma indi group un groupe espagnol. Mm-hmm. ñu liggéey fi liggéey fi liggéey bu mucc ayib. def nañ ci defe naa suñu bu ñu defee suñuy bilan. Mhm. ak lépp def naa valeur bi ñu liggéey ak yooyu ça fait plus de deux milliards de francs fa mhm. de production. Euh, mais euh, Khadim euh, Ngomeen wetu Pout nga ko doon defee tey yow nee nga léegi commune ba am na xur woo xam ne xañ naa lu tax lëkkaloo woo waa commune bi ba man fee indi xéwal googu wala dañ la am mooy possibilité pour loolu am. non non non xam nga loolu aussi nag programme étatique la woon état bi. Ah, pour moo doon tànn. Mhm. fi ñu koy def. waaw parce que dafa am agence. Mhm. bu tuddoon REVA. Mhm. léegi ñu tuddee ko ANIDA. moom moo doon équipé des pôles. obligé nit ñi ñu dem fa. mais xam nga ne su fekkoon ne sama coobaree bopp la. waaw kon du ma dem fenn fudul sama gox. loolu nag moo ma gën a incité. xam ne agriculture bi mën nañ ko développer. parce que maa ngi ak relation boobu. maa ngi yeneen xam fi ñu war a jaar. liggéey ci loolu non seulement liggéey ko Sénégal mais liggéey ko feneen ma ne nag naa indi sama expérience boobu sama man-man boobu ànd kook agriculteurs yi fi nekk pour agriculture bi nga xam ne mooy suñu première activité nekk une activité phare productive ba population yi gis ci seen bopp ndax loolu mooy li nga xam ne nii mooy indi valeur ajoutée ci suñu gox loolu mooy li mën a indi koom-koom ci nit ñi. Euh, kon monsieur Khadim Gueye di candidat coalition jàmmi gox yi. Euh, jàmm ji moom à travers l' agriculture nga ko bëgg a indee. non jàmm ji ci lépp. ci ak ban côté. maa ngay tàmbalee ci santé. ah santé aussi am na am nga fa projet yu bari. njàmme waaw. ba ñu nekkee xale yi. waaw dispensaire lañu daan dégg ca na waaw. je peux comprendre que actuellement l'organisation de, mondiale de la santé. wala -hmm. di Sénégal. Mhm. articuler neneen. Mhm. fi ñuy fajoo. waaw mu commencé ci case de santé. waaw poste de santé. Mm dix centre district ba keroog muy dem ci hôpital niveau deux de waaw mais pour man poste ak centre ak district amul solo loolu contenant la waaw li am solo mooy contenu bi mm-hmm. te mu nekk compétence transférée maanaam maanaam ñu jël ko mm-hmm. jox ko maire yi mm-hmm. gox yeeg gox goxaan yi pour ñu doxal wér-gi-yaram l'organisation wér-gi-yaram bi waaw kon yaakaar naa ni ku bëgg sa population nekk ci jàmm mhm. ku bëgg sa population mën a liggéey mhm. langa war a jëkk a saytu mooy wér-gi-yaram njàmme mhm. presque hôpitaux yi nekk fii euh, poste yi nekk fii visité naa leen raar nga ciy dugg fekk ci yoo xam ne ne am na ay éléments de base salubrité bi rek boo duggee bay xool da ngay xam ne toppatoo ba ca war rek te ñay faj di ay infirmier la ñuy recevoir ci ay nit ñu doy goo xam ne nii mën nañoo toppatoo li ñu war a toppatoo pour santé bi ni mu war a demee. li may wax ci contenu bi. waaw mën ngaa nekk poste de santé. Mm-hmm. te du la tee am laboratoire. du la te am échographie du la te am radiographie du la te am yi nga xam ne nii jumtuwaayu santé bu ne c'est des éléments de base yu ñu war a am tey jii ku war a faju buñ la nee da ngay def analyse wala da ngay def loolu fajar nga yeewu ndékki sax mënoo caa jaar. teel a àgg Cees wala xombal rang fa bàyyi sa lépp ñibbi si ak sa feebar war a wëlbatikuwaat dellu pour jëli ay analyse war a dem seeti médecin est-ce que feebar bi moom day xaaralu lépp te loolu mënoon nañoo wut ay éléments de base yoo xam ne nii poste de santé bi déjà équipé ndax Thiénaba doyoom dafa weesu foofu mhm. su amul centre poste bu nekk nekk poste avancé mhm. am ay jumtukaay yoo xam ne nii boo fa duggee parce que santé dafa sensible te doy waar. nit ki bu nee salaamaaleykum rek. la muy teg ci bëtam pour mu faju rek mën naa wàññi lu bari ci feebaram. macha allah xaadim. Ah. Euh, agriculture santé mooy faj nit ñi ba ñu wér ñu dem liggéey ci agriculture foofu lañuy ñuy yem. déedéet lu ci des. matuma mën naa dugg ci jeunesse et sport. ci wàllu ndaw yi. ci wàllu ndaw yi. Mm-hmm. ak wàllu sport. nga mm-hmm. amee ah. wax fa dëgg yàlla. ba léegi compétence transférée la ci laa wax de. waaw mmh. cene ba. Mmh. waroon naa dépassé ab estat boo xam ne lenn nekku fa lu dul ab mur ak barrière waaw cene ba mérite plus soo ma nee et les moyens les du taw dañ koy wuti mmh. moyen am na fu ne mais dañ koy wuti cene ba aujourd'hui war naa am un stade omnisport ndaw yi di fa mën a tàggatoo xeeti sport yi am yépp ci dëkk bi ñu mën fay détecter ay talent may ñi nga xam ne seeni chance fa la nekk ndax du njàng rek mooy réussir loo nit mhm. football day réussir en général sport yëpp dafay am réussir mhm. mais xale bi bu tolloo ci ndawam toll ci âge am bëgg ko mhm. te gisuñu jumtukaay yoo xam ne mën na ko exceller mën na ko def loo xam ne nii dañ koy ràññee wala mu dem feneen mais en dehors de cela population bi ci seen bopp ñoo mérité am foo xam ne bu ñu bëggee dem seetaani sax toog ci lu rafet ak lu baax ndax jeunesse bi jàmbaar lañu mm-hmm. kenn waru leen a fàtte ci mm-hmm. loolu waaw lu ma am ay xalaat la mm-hmm. am ci ay projet am ci ay bunt ngir que ba nekk un un boo xam ne nii. soo fa ñëwee la pratique de sport. ndax sport ñëpp a ko war a def. dëgg la du tumuraan Euh, macha allah mu nekk lu am solo kon euh, yow mi seetaan euh, yaa ngi seetaan 45 minutes chrono ñu am comme invité monsieur Khadim Gueye mi nga xam ni moom mooy candidat coalition jàmmi gox yi. ñetti compétence transfert la ñu duggagul te déjà neuf compétence transfert la muy juróom benn yoo xam ni bu nekk buñ ci duggoon rek dina ci indi ay détails mais monsieur Khadim damay basculer waat tuuti de. li ma dégg ci mbedd mi ma nettali la ko parce que man des fois damay dox gars yi suufu gara yeeg yooyu ñu am lu ñuy wax euh, ci xaadim xaadim yaa ngi wax naan compétence transfert lii laa fi def nanga ma nanga ma wax la ni la am na nga ni ma am na lu ma naqari lu ñu naqari loo xam ni mairie bi doxul jamono yële passé dañoo gis nii am na opposition bu fi nekkoon doon xeex ci wàllu carrière de sable bi doon ci wax Euh, yéen ñi nga xam yéen lañ seen ci terrain bi ñu ci bari dégguñu leen woon jamono yooyu tey am nañu occasion xam ban xalaat la ci xaadim wax carrière de sable lañ coow carrière de sable bi yow fu mu la fekkoon. Euh, une partie. waa bi muy soog a commencé. waaw su <coughs> ma tukki woon fekkuma fi. Mm-hmm. mais je suivais maa ngi doon suivre débat yi. Mm-hmm. yàlla xam na ni bi ma déggee coow li. am na ci ñoo xam ne ñu ngi woon ci terrain bi contacté naa leen pour leerloo lan mooy tenants yi ak aboutissants yi lu tax lii am ak yooyu ah, bi ma informé woo informé yow aussi ci conseil yi ba xam wax fa dëgg yàlla lu ma metti la lu ma metti mooy Thiénaba ay ressources am dafa bariwul donc su ñu demee ba am lu mel ne carrière bi beneen coow waroon la fee jóg bu dul cooyu jiñante man xaadim nag sama position personnel man duma ma jiñ kenn lu ma wóorul du mën a diw a sàcc du mën a diw sàccul du ma miimal kenn nit mais daal bi ma gëstoo li ma gis te man koo wax te assumer ko mooy am na ay erreur de gestion yu bëri yoo xam ne moom laa ci gis ne buñ ko doxale woon neneen ak orthodoxie bi nga xam ne nii moom moo war a séq lu ñëpp bokk te ñu ñu mu ñu jox ko nit mu di ko yor. Mm-hmm. foofu la ko war a jaarale. ma gis ne du début à la fin bañ ko sosee. Mm-hmm. donc commencé wul ci maire bi fi ne. Mm-hmm. ma nga tàmbalee ca ña jëkk ña ko sos. ba mu ëgsi ci maire yi. ragal naa am na doxalin woo xam ne bu ñu ko adapté woon. problème bi dina leer ci ñëpp te jiñante tuuma du am waxante lu ñaaw du am. mooy. parce que dama laaj. li may dégg moo benn nit rek moo fa daan nekk di gérer. jàmme lu day ne ab carrière. soo jëlee benn nit teg fa. oto bu dikkee. fay ko. mu dugg. kooku bu dul ko ragal yàlla. su fukki oto duggee. su ko neexee mu déclaré ne ñaari oto duggoo la ñett. mais su boobaa. ban méthode de contrôle nga am. pour xam xam lii moo fa dugg wala lee moo fa dugg. man ci sama gis-gis. dafa waroon a am au moins trois postes de contrôle. pécuniaire. waaw kiy dugg di fay. comptabilité matière. ka nekk ca suuf. di fekkee fa ñuy yebe camion yi. ak logistique bi ka nekk ci kaw di récupérer. bon yi. su boobaa ki dugg bu fayee ñu bindal ko bon su wàccee ci suuf. ñu xam tonnage bi ñu ko defal. muy loo xam ne nii dara lu leerul du fa am. su génnee logistique bi joxe ko ca kaw dinañ xam numéro oto bi fi dugg ñaata oto fi dugg ñaata tonnage lan ci xaalis la su boobaa bu faay amee dina neex a doxaliin wi waaw doxalin bi doxalin wi mhm. moo dul doxalin woo xam ne nii manees na koo nangu mhm. loolu nag dafay indi jiixi jaaxa ci ñëpp mhm. ndax ñi xamul mën nañoo jiñ ñi yor waaw te ñu yorit dina jafe ñu défendre seen bopp ci loola yow a du man la ca des nag comme ma nga ca loxoy justice te man nit ku respecté justice la mënuma ci avancé tant que justice prononcé wul waaye loolu daal ci doxalin lu ma gis la loo xam ne bu ñu ko defoon mën nañu dimbali bokk ne am ci lu la leer ci doxalin macha allah euh, monsieur Khadim Gueye carrière bi euh, Thiénaba commune Thiénaba dina ci génn ressource mais yow li nga lim fii ni tey boo ñëwoon ñu teg ko sa loxo euh, di nga jóg liggéey ko ci ci ci ci biir commune bi ci neuf communes domaine de compétence bu nekk te benn ressource rek lañ séen wala dafa am yeneen ressource yoo xam yu ñu xamoon ñun ni euh, commune ba am na euh, capital boobu wala am na doole boobu ba mën a liggéey yow li nga xalaat yi pour liggéey ko wala wala wala wala fan ngay jëlee xaalis bu boobaa. Ndiame waaw. xaalis moom kenn du ko def ci poos kenn du ko def ci tiroir. xaalis waaw xaalis waaw. dañ koy wuti dañ koy wuti commune nag mhm. am lu ñu ko jagleel loo xam ne nii ku ci ne te dox doxin wa wala nga jóg ne da ngay liggéey njàmme affaire commune dafa nekk lu sérieux mhm. être maire mhm. dafa nekk lu sérieux yaay premier magistrat de la ville yaay représenté maire bi yaay signé contrat yi yaay def passation de marché yaay def lépp li nga xam ne nii bëgg-bëggi askan la suba ba ngoon kon loo gis loo xam ne nii lu war a jarañ askan wi la danga am ambition war ko mën a jëli indil askan wi nit dafay ambitieux mhm. subhaanahu wa sax soo ko doon ñaan te yem ci téeméer rek mhm. dina seeti keneen kuy laaj ay milliards mhm. kon nit dafa war a yaatal xolom yaatali ambition xool ne kat lu war a am ci àdduna war na am ci sa mairie alors pour revenir ci question bi nga ma laaj. Mhm. ci recherche des. des des moyens des moyens. waaw mais ñaame l'acte xam nga bu njëkk ci communauté rural yi lañ nekkoon. waaw mu am ay xat-xat yoo xam ne nii bari woon na ba président communauté rurale yi mënuñu def lu bari. mais bi ñu defee l'acte trois de la décentralisation. Mhm. mais foofu dafa ubbil maire yi en dehors des fonds de dotation ak fonds de concours. ak peut-être euh, xëy na ay ay taxes te lu mel ne suñu communes yu ndaw yi taxes yi mënu fi bari taxes yi boo xoolee du représenter sax 40 pour cent du budget mhm. mais dafa am loo xam ne nii état central sax moom lay doxee mooy la coopération décentralisée mooy les financements publics l' état du Sénégal a créé beaucoup de programmes y a le e Rural PRACAS ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni état daf ko créer pour des politiques publiques loolu nag le maire di war di jëli di ko rapprocher indi ci population yi su boobaa domaine de compétence yi lu bari di ko ci mën a doxal mais yemuma foofu mhm. il faut créer des projets structurants des projets innovants porteurs de valeur ajoutée loolu foo ko yóbbu ci organisation financière bu mën di doon dinañ la ko financer pour sa population nga jóge ca dem ci coopération décentralisée mais euh, de l' article quinze à l' article dix foofu dafa organiser de du code des général des collectivités de territoriales mmh. dafa permettre ñu def coopération ak solidarité mmh. d' abord su ma jëlee solidarité bi mmh. ñun dañu nekk ci benn entité une sous-préfecture mu am quatre commune quatre communes yu fi nekk mhm. plus un peu un tout petit peu la commune de Khombole même su fekkee dafa dépendre ci Thiès mhm. mais l'intercommunalité bi ñu mën a liggéey foofu mën nañu permettre ñu développer ay projets structurants yu bari mhm. aide ak solidarité bi ñu mën a am diggante Touba Toul Ngoundiane Thiénaba ak feneen mën nañu dimbali loo xam ne nii suñ ko développé ñun commune yëpp ñu bokk mu nekk une richesse mais aussi la coopération encore de santé mooy dem mën a jóg yor ay projet présenté ko dans les organisations yi financé mën a jóg dem chercher ji ay coopérants ci yeneen maires yi créer ay jumelage peuple yi connecté wu xamante loolu yëpp ay bunt la yu mën a indi ay xéewal ba nga xam ne ni financement du nekk lu lay sonal. ma macha allah euh, mu nekk lu am solo. Ah, ah. Euh, ba léegi yaa ngi naan ma coopération ci diggante maire yi euh, coopération ci diggante diw ak diw mais am lu ma fore ci mbedd mi tamit bëgg la ko indil nga am occasion pour tontu ci dafa am président de la république bu nekk en Afrique boo xam ne Khadim dafa am relation ak moom. waaw ay. ay comme kan comme kan ak kan non hmm? tey ñoo wax ci canaba rek parce que non mais dafa am fu ma jëm xam nga dafa am fu jëm xam nga loolu waaw duma duma seeni xarit peut-être waaw xëy na liggéey moo ñu boole am na ci nag ñoo xam ne nii wax fa dëgg yàlla xaritu état yi sax laa mën a wax yoo xam ne dama liggéey moomu fa yóbbu ma dem ba ñu amante ay relation am amatu mais relation boobu c'est purement personnel mhm. ci sama diggante ak ñoom mais li ma yóbbu ci dëkk yooyu yan dëkk la Khadim nu mu defal le président Mballo Ndiame nañu non le président Mballo bu Guinée-Bissau ak Khadim Gueye Ndiame su ma toogee fii est-ce que loolu ma toog ne non parce que dafa am ku ni ma Khadim euh, euh, ci candidat commerçant yi la bokk candidat commerçant mooy lan voilà très bien candidat dañ ne ma ñetti façon candidat moo am candidat bi soxla mairie bi euh, am na nga xam ne moom dafa jóg uniquement pour ñu ñu jox mairie bi mu nekk maire am koo xam ni dafa jóg pour ñu reconnaître ko ci instance partie bi mu nekk ca kaw ndax reconnaître ñu ko woon am ci nag koo xam ne ni dafa jóg teg candidature pour ut xaalis ñu ne ma Khadim Gueye ci la bokk ah waaw xam nga àdduna moom je suis content bañ boolee ma ca dara <laughs> li bon mooy kuñ citéwul ci dara. waaw mais il faut donc ñi koy wax ñi koy wax. waaw peut-être am nañ ay éléments de preuve ci li ñuy wax. waaw mais yow yow. mais daal li ma la mën a xamal mooy. waaw ah. sama candidature. waaw te magum jëmu laa du xale. Mhm. li may wax it samay nawle dañ koy dégg. dëgg la ñooñu ñuy wax réew yooyu nga xam ne ni am naa ak ñoom ay relation mhm. te liggéey moo tax ma am ak ñoom ay relation mhm. gëm naa ne daanaka est-ce que yëg nañ ne man candidat Thiénaba la. ah yëguñu ko. est-ce que est-ce que. parce que lan lañ may man a apporter gis nga man. Mhm. li tax nekkuma ci parti. Mhm. man du ma doxe xelu jàmbur. man je suis très clair. Mhm. je ne suis pas de l'APR je contre le président Macky Sall. je ne suis du parti de Ousmane Sonko je ne suis contre Pastef je ne suis pas du parti de Idrissa Seck je ne contre le Rewmi man. doomu gox bi laa yàgg liggéey ci loo xam ne nii développement local la mhm. yàgg liggéey ci ay projet yoo xam ne nii projet de développement la ma am benn carnet d'adresse am ay relation xool ne lii mën naa koo indi ngir lu doxal sama gox loolu moo ma engagé loo mhm. li may def ci sama campagne li may liggéeyee mooy li may dunde mooy sama ñaq yu ma yor ndax yëfi jàmbur moom wala xaalisu jàmbur wala leen ku koy doxee ñu gis la xaalis ku ko bëgg waaw da koy liggéey mais man soxlawuma cana ba taxul ma xam ñooñu xam nga cana ba taxul ma xam leen mhm. dama leen a xam ci sama yëfi bopp mhm. parce que su ma soxlaa ma dem ca ñoom bu bu ñuy joxee mhm. wala ma leen di ñaan ma dem ca ñoom ñu may ma j'ai pas besoin euh. d'être candidat à la wala kon su ma bëggee xaalis ma mayee du ma ko politiqué waat waaw au niveau de Touba Gueye Touba la nga dëkk fi yëkkat sa loxo damaa bëgg ñu jox ma mairie bi waaye euh, xam nañ ne aussi beneen candidat yëkkati na loxoom dëkk ci même quartier bi ak keneen koo xam ne mu ngi ci beneen liste waaye benn la ci quartier tout euh, quartier yi Kër Maysa yi euh, moom tamit ni dafa bëgg list boobu ñu fal ko euh, ñett yooyu est-ce que xatul ci Touba yi ak Touba gi ni ñu mbokk gi ni mu jax jaxasoo xatul. waaw mais man du ma candidat Touba gi Ndiame. Ah. man candidat commune bi la. Hmm. liste yi neuf liste yi am ci commune bi. fool liste boo dem fekk fa doomi Touba gi mhm. fekk fa doomi Canaba doomi xay doomi doomi Bangaaj doomi Jaayaan doomi Kër Yaaba Diop ñun ñëpp suñu objectif mooy liggéey pour commune bi pas stigmatiser xanaa kon candidat ba jëkk Canaba candidat Canaba ba dëkk fee kan non man candidat Canaba la et on en démocratie njàmme mhm. wuute gis-gis moo am mhm. mais ñaawoo amul wute gis-gis la ñu def ku ne na nga xalaat ne boo ko doxalee mu dox moo fi am mais amul benn candidat boo xam ne nii dañ la war a stigmatiser ne candidat bërëb sàngam nga man candidat commune Thiénaba la euh, monsieur Khadim gi euh, feeñul sax ci présentation bi mais samay gëstu coordonnateur u euh, màggalu Touba Gueye bu sëñ Baara gi fi def est-ce que tamit politique bi ak diine ji muy tarixa ak canaba est-ce que du jaxasoo parce que am na ñu ni xaadim est-ce du candidat mouride pour être clair. <laughs> candidat mouride ma nga Touba <laughs> candidat mouride mënta nekk canaba. <laughs> man. su ma yàlla ci mbaaxam. Hmm. ak confiance nit ñi dafay maire. man maire commune de Thiénaba laa nekk nekkuma maire Touba nekkuma maire Tivaouane nekkuma maire Niassène maire commune de Thiénaba laa nekk pour mu leer donc candidat murit amul candidat Thiénaba moo am te boo nekkee maire ñépp ngay servir fii nag ku ne xam na ni Thiénaba lu fi waaye nekkit benn baatu fi am muy baatu Seexu Thiénaba kon candidat bu ñuy stigmatiser ci cib dëkk cib tariixa wala ci waaso loolu du démocratie du politik man daal candidat commune Thiénaba laa fas yéenee liggéey ngir commune Thiénaba mais Thiénaba waaw jàmme su ma neexee ma ne man fa laa dëkk sax Thiénaba Thiénaba man bi samay maam goree fii en may wax ni deux ans avant Thiénaba. jiitoo nañ fi maam Amary Ngoné Ndak ñaari at. ñaari at waaw. Mhm. mais bi mu ñëwee ñu nekk ak moom. Mhm. séq ak moom li ñu war a sëq ak moom lépp. Mhm. fànn gi lenn li di ci lislaam bi ñu bokk. ak doomi soxna gi. ndax suñuy maam ay daara lañu yoroon fii. mais leneen li di ci mbokk deret. njàmm. ndaag maasi gi. moo jur Amary Ngoné Ndak waaw. yaxamaa sigi mm-hmm. jur sàmba ndaar mbend mu jur ngàcc mu jur bunaama bunaama jur ma loolu da xamee ma ko noonu kon man canaba la génnuma canaba weesiwuma canaba lu nit sañ canaba sañ naa ko te awma lu dul canaba euh, xadim temps bi mu ngi dem tuuti moo des ñetti candidat yi lañu wax ni moo am li nga xam ni dañ koo faloon jox ko mairie bi mu dawal mandat ñu nanguwaat ñu ko demal xaw ma ne ko nag demal toog d'accord ñoo yow wala defoo fi dara kooku population bi ñoom ñooy wax keneen ki dafa yoroon ba mandaam jeex mu tàllalaat loxo ni day laajaat keneen ki mësta yor mësta laaj tey lay doog a laaj ñett yooyu boo ma ciy tënkal di ma ci différencier loo ma ci indi ci ñett yooyu euh, ñett yooyu mhm. kan mooy candidat propice bi ko ci ñett yooyu non candidat propice population bee koy wax ndax ñooñu ñëpp dafa am lu leen définir. ah kon du yow. ma ne loolu population bi. non mais wax yow yow Xaadim du yow. yow doo candidat. non man sama man kuy wut. waaw da nga naa maay dem gagné. je suis le meilleur des candidats. Ah, waaw. mais dama ne. waaw da ma posé question bi nga ma posé du loolu. waa lan la. question bi nga ma posé réponse bi ma ci war a joxe mooy. waaw ki nga xam ne nii. dafa yoroon ñu ndungu ko ci moom waaw bala moo ñëwaat waaw waroon na xool lu tax ñu sanctionné ko moom moo ko war a xool moo moo war a xool waaw lu tax ñu sanctionné ko ba nangu ko ba nangu ko ci moom mm-hmm. ndax ñëw gi muy ñëwaat ci làngu gi di laajaat faj na la taxoon ñu dax mm-hmm. kooku loolu la war a xool muy benn muy benn mm-hmm. ki yor kooku jarul campagne ku yor yi mhm. bërëb ba taxaw ne da ngay présenté waat. Mhm. mais kooku bilan lay wone mhm. kooku bilan moo koy fal bilan moo koy dax population bi nag xam nañ bilan ku def xam nañ bilan ku deful. man nag fi ma bokk groupe bi ma bokk. waaw mooy ñiy proposer programme. ñu mës a ñu mës a ñu ñoo ànd ñun programme rek la am di ko proposer. loolu nag programme bi population bi. dinañ xam ki ñëw rek ngir bëgg a dugg. ki am capacité ngir jële maire bi point A yóbbu ko point B ak ki nga xam ne nii dafa bokk rek ci ma riirandoo bi loolu population bee koy ñoo koy partagé seen bopp man duma kenn pour juger leen mais man daal doomu gox bi laa engagé wu naa concevoir naa bind naa xalaat naa ay programme pour soqali Thiénaba pour jëlee Thiénaba am fu ma ko yóbbu dans tous les secteurs du développement. Euh, campagne bi jub na. campagne laaj na moyen de monsieur Khadim Gueye est-ce que Khadim pare na. dan pare naa bu yàgg yàgg na kooku fële la féete. pare naa ci xalaat. pare ci programme pare nag ci parce que écoute man nekkuma ci encore une fois politique politicienne wax man du ma wax lu ma xamul du ma lu ma amul. waaye nag sañ naa jóg ak sama programme ànd ak ñi gëm sama programme dugg ci biir askan wi ci ngor ak yar ak i teggin pour expliquer leen li ma bëgg won leen nit li nga xam ne nii man naa koo def su ma leen doyee ci kattanu suñ borom jox ma mairie. Xaadim wax na ko nee na du politicien ñëw na nag ci terrain politique bi waaye parce que gis na ni gox bi am na lu bari loo xam ne moom foog na ni bu ci duggee ci fànn wi la ci mën a reglee lu bari. ci wàllu développement ak yeneen ak yeneen mais tey bi nga ñëwee est-ce que ngeen gis ni diversité bi bari na mooy kee ngi jaar ne kee jaar ne kee jaar ne mu mel ni pëccëxoo est-ce que du woon àndandoo yéen ñi nga xam ne yéen a bokk benn objectif ndax koo ci te dékk micro dinaan la defar canamu moom mu tax a lu tax àndandoowu leen ba neuf listes am ci wala huit dans l'opposition am ci ngeen dugg ci euh, commune bi pour laaj ko. Ndiamé est-ce que loolu tamit du indi jafe-jafe. diversité boobu Ndiamé. Mhm. à l'image Sénégal Sénégal dëkk bu ndaw la boo xam matul vingt millions d'habitants. Mhm. y a trois cent et quelques ñoo fi nekk. Mhm. li am ci kaw rek mooy am ci suuf. moo wàcc base des ambitions ambitions personnelles. ku ci ne yaakaar nga ni yaa man lii. mais yow am nga ci xalaat. yow sa xalaat lan la. non sama xalaat dox naa ci. waaw jóg naa ci bëgg naa te bëggoon naa ñun ñëpp ñu àndandoo mais àndandoo bi dañ ko waroon a saytu ci programme mais pas ci nit mais ñëpp dañoo jóg visé ne damay nekk maire su ñëpp visé ne damay nekk maire kenn du wóoloo bàyyi sa morom ku ne da ngaa bëgg a nekk maire mais xëy na bu ñu ko élaboré woon dox ko ci programme su boobaa ku ne di nga xam la nga man parce que bu ñëpp taxawee nag ku ne xam nga kuy morom ak ku dul dama am programme bu rëy ci environnement Ndiamé. Mhm. boo xam ne nii ragal naa ni. Mhm. sur les quinquennats suñ ma éliré. Mhm. defe naa ne lu ci mat ba keroog mooy àgg. damay liggéey ci environnement. pour delloo suñu àll bi mhm. ni mu na waroon a mel ak ni mu meloon il y a très longtemps mhm. pour suqali mhm. dimbali yoo xam ne ni te loolu développé naa ci ay projets yoo xam ne nii financement yi ñi ngi taxaw di ma xaar présenté ko modeste bu boobaa valeur ajoutée bi mën a créer en jonction avec l'agriculture parce que li ma bëgg mooy suñu béyatee fii ci Thiénaba ci gox bi mu bañ a génn gox bi njàmme ki bay bangaaj saako soble ba muy jaay wala kaani su ko jaayee ñaari junni ma ngi koy jaayee ji marché caaro yi la su demee fay juuti fay transport fay fa mu dëkk balaa retour na ci dëkk bi daanaka njàmme lépp jeex trois mille francs mooy des ci xaalisam mhm. man li ma bëgg mhm. mooy créer benn marché local mhm. li ñu fi bay dootul jariñi waa caaro Caaroy dootul jariñi waa Tuubaatul waaye waa Canaba dinañu permettre ñu créer ay chambre de conservation dinañu permettre ñu mën a développer ay projet de transformation de nos produits agricoles yi fi nekk dinañu permettre ñu créer ay logistique ba xëyu ndaw yi am fu mu féete dinañu permettre ñu mairie bi nekk un incubateur boo xam ne nii dafay créer ay start-up xale yi nga xam ne nii dañuy soog a pare am njàng mën a nekk de petits yuy créer emploi yoo xam ne nii dootu ñu nekk ci àll bi di taxawal. Mm-hmm. loolu benn point la benn ñaareel. Mm-hmm. jàmme mm-hmm. man dama am yéene bi question bi nga ma doon tudd léegi cana baag murut ak yooyu man dama am benn yéene xam ne dama ko yàgg vivre jàmme maam Amari Ngoone Ndak ci laay ñëw sama maam ju tedd jooju sama maam jooju mu def lu kenn mënta fay lu kenn mënta sakk li mu def ci àdduna mhm. canaba dayoom weesu na fii mhm. aujourd'hui mhm. maa ngi am yéene créer bibliothèque bu maam Omar Ngoné Ndak bu rëy ci sa programme la bokk ci sama programme boo xam ne nii l'école de Thiénaba sera une réalité nit ñi di jóge fune di ñëw ba di gëstu li mu def waaye di gëstu leneen ci lislaam ñuy def ay thèse ñuy def ay publication mhm. ñuy jàng xeet yu ne mhm. loolu mhm. dafa bokk ci sama point bi may tuddee le marketing territorial mooy viabiliser suñu gox yi rendre leen viable et via et vivable loolu dinañu permettre ëllëg tourisme religieux bi développé wu ci biir Thiénaba Thiénaba dafay def gàmmu nit ñuy jóge fu ne mhm. ñu koy dégg fu ne mhm. donc am na yeneen infrastructure yu fi manqué yoo xam ne nii war nañ ko def tey jii mhm. Thiénaba démb maa ngi fa dem di seet ay nit fekk ay jigéen ñuy bale ma leen ne mairie bii su ma ko yàlla joxee sama premier objectif mooy def pavoise ci lépp luy urumu Thiénaba ak ndax maam Amari Ngoone Laak mérité na lu ëpp loolu macha allah loolu sama xol la loolu sama programme la bokk euh, te lu ma temps bi ak ak ban xaadim muy ñetteel beneen bi waaw damay retourner ci éducation waaw gis nga mhm. kenn mënta développer ci culture jàmbur kenn mënta développer ci xelum jàmbur xam nga man lu ma gëm valoriser suñu territoire yi a partir de nos produits locaux mais à partir de suñu nit ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk loolu mooy la mooy njàng ak njàngeen mhm. fexe ba créer ay centre de formation des métiers mm-hmm. dans l'agriculture mm-hmm. dans l'artisanat centre de formation professionnelle professionnelle mm-hmm. pour gone yi amul chance def étude supérieure mën a dugg foofu jàng-jàng moo xam ne nii dina leen permettre ñu mën a développer ëllëg suñu goxaat leneen ci ñi nga xam ne am nañ niveau supérieur bërki démb dama dem université tuuti sama rangoñ dal ci sama dënn ay xale yu jóge ci commune bi mat nañ soixante ou plus nekk à l'UCAD bi ma demee di visiter néeg bi ñuy tëdd ils sont trente dans une chambre boo xam ne nii c'est deux sur trois la ñii di superposer wuy tëdd ngay xool xale yi sa yaram di daw moi maire de cette commune cette histoire la va cesser. macha allah parce que rax ci dolli. <laughs> waaw rax ci dolli. waaw ma may njàmmee. waaw parce que li c'est une occasion mais mais may ma rek may ma. waaw mhm. ma am. Mhm. beneen gis-gis aussi gis nga les mêmes étudiants yi nekk fii. Mhm. ce sont les mêmes étudiants yi nekk dans la diaspora. nekk ay étudiants parce que kenn ba dëkku diine la. ñu nekk dans les pays arabes. dañuy souffrir souvent même bu ñu amee ay bourses. assistance bi mairie bi waroon a def problème la ci ñoom. ma mujj nag ci ñenn muy la diaspora mm-hmm. ndax Sénégal lu dox diaspora bi dañ ci am rôle bu mag mm-hmm. su ma jëlee maire bi su ma ko yàlla joxee mm-hmm. je vais créer bureau dédié à la diaspora bureau d'accueil et d'orientation ci biir maire bi ci biir maire bi man diaspora laa bokk da gis nit ku soxla kayitu judd wala casier judiciaire nekk fa mu nekk ci àll ba dina fay ay xaalis coono fu ne mu dugg fa te këyit ba sax lu ñëw ci moom. macha allah dinañ am ay partenaires yu ñu war a indi mais du ñu xam yoon wu ñu jaar ba war a indile partenaires yooyu pour ñu dugg liggéey ci biir dëkk bi donc ce bureau là j'y dina am officine boo xam ne nii diaspora moo tax mu jóg di leen lijjanti seen i famille lijjanti seen i kayit mais bu ñu jëlee koom war koo indi mu am fu ñu leen ak accueillir leen ba ñu mën a liggéey pour njariñu commune bi. xaaral bu lay tàggoo. mais di la remercier. <laughs> waaw di la wax ne affaire bi dafa gaaw man doyalu ma. Euh, man waxaguma sax dara sama programme. ngay arrêté émission bi waaw xam nga yoon yemul si benn. waaw mais euh, damay wax ni. man waxaguma sama programme. waaw dinañ ñëw ñaata domaine de compétence la waxuma ci culture. waxuma ci. <laughs> Euh, euh, aménagement du territoire. waaw boo duggee suñu àll bi y' a un plan directeur de la commune. Khadim c'est regrettable. Khadim il faut un plan directeur. waaw buy def vision dans cinquante ans. fan la Thiénaba war a àgg yan espace la ñu war a bàyyi lan la ñu war a ñool fan la ñu war a jaar. tàggool. kon maa ngi tàggoo <laughs> waaw di gërëm d'abord. Mm-hmm. di la gërëm. merci di gërëm sama collaborateur yëpp. Mm-hmm. yaa ànd ak man. Mm-hmm. muy sama directoire de campagne. sama directeur campagne nag yaatu na. cene baa ngi ci bangaaja ngi ci jaay tund wi yëpp fu ne nit a ngi fi. ñu ànd ak man gëm sama programme ànd ak man di liggéey. di jël ngërëm loolu ak cant googu nag di ko teg lépp ci loxo Baye Assane Seck mii suñu baay di suñu xalifa di suñu kilifa ñu koy ñaanal yal na yàlla fekk aw fanam yal na liggéey bi mu teg naal ko mm-hmm. ngir jariñ umma islamique mm-hmm. yàlla àggaleel ko may ko kattan mm-hmm. ndax Thiénaba du pour Thiénaba rek Thiénaba patrimoine mondial la maam Amari Ngoone nag ñun ñëpp a ko bokk. ay xéewalam baawaan na fépp. kon maa ngi ñaan lii ñuy dugg ñun ñëpp ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim. amiin yaa rabbi génn ci ak alhamdulilahi rabbil aalamiina. amiin jëriñ ci suñuy gox. te ki gën ci gox bi. Mm-hmm. te ñu xam ne bu ci duggee ñu jox ko gox bi. waaye nit koo xam ni tamit nit ku bëgg waxtaan la euh, feeñ na suñu waxtaan waaye euh, affinité bi muy moom ak man tamit yow mi seetaan xam naa ni feeñ na si si yow ndax damay wax ni ñoo daje nag école primaire ñoo fa daje woon waaw lépp rafet ba tey euh, ñu koy jaajëfal bu baax di nuyu nuyuwaale tamit téléspectateurs yi nga xam ni saa su nekk ñu ngi ñuy topp ci à travers YouTube bi Euh, ku ci mel ni Djibril Dieng Djibril yow moom damay wax ni yaay nekk internaute numéro un euh, bu 45 minutes chrono El Hadji Alioune Kandji euh, di sa xarit Alioune waaw moom tamit macha allah ñu ngi koy nuyu mm-hmm. di nuyu Pape Kandji directeur mm-hmm. macha allah di nuyu tamit mm-hmm. ñi nga xam ni lu mën di sori éragement mbeng mhm. yaakaar naan duñ def émission bi euh, te tudduñu ko moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax depuis euh, Europe ma nga fa di liggéey waaye xelam di mhm. naan picca nga ca kaw waaye xel euh, xel maa ngi ci suuf mhm. ak internet yi ñuy seetaane di ñu bëggee ak téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi koy seetaan à travers la télévision Thiénaba TV locale ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal kon 45 minutes chrono moom nii rek lay demee saa su nekk chaque dimanche vingt une heures fu mu jotee dina daw ci euh, télévision bi euh, dina daw tamit ci YouTube bi bu ko defee ngeen mën di ànd ak ñun euh, jaajëfal nañ la monsieur Khadim jaajëfal sa collaborateurs yi di la souhaiter tamit yàlla na yàlla def jàmm ni nga ñaane jàmm ci réew mi ñaane ko jàmm ci gox bi élection yi yàlla na yàlla def mu jàll ci jàmm hmm. euh, ki gën ci réew mi euh, ki gën ci gox bi yàlla na ko yàlla def euh, jox ko ko teg ko ci loxo moom tamit moo am xelum nu mu ko diriger ba nit ñëpp kontaan yaakaar naa ne loolu rek moom mooy suñu ñaan ñu ngi àndoon ak Khalifa Ndiaye Seck ci caméra bi àndoon ak soxna Mami jàlloo ci beneen caméra bi ak ci assistance bi technique bi Alpha Ibrahima Sarr Moussa Ndiamé Gueye moo seqoon ak monsieur Khadim Gueye euh, di euh, candidat coalition jàmmi gox yi xam naa beneen dimanche bu 21h jotee ak beneen invité fii ci Thiénaba TV point com. 45 minutes chrono di émission ay politiciens di amee fii ci Thiénaba TV émission boobu la ki leen koy defal mooy Moussa Ndiambe Gueye dangeen leen ko xaar chaque dimanche bu 21h jotee fii ci Thiénaba TV.